ma ko utal morom dem leen pëtti waawan lu fa baax moo ko fa def defar na jumaaya defar hôpital ya defar sapeur bës defar na raw du baayam sëriñ Abdu ku feebar mu bala bay nañu wayloo toto bay ba mu jiitu noo mbay la ko jiital mbay dafa ànd ak góor gi bu jiital ñun bu ne dàq mbay bu nu jiital mbay ba ko wayee mbay bu nu jàq mbay bu nu jiital mbay ba ko wayee mbay bu nu sàggal dafa jëkk bu ñu sàggal yaa aliman lana aljamila azara wa xaafiran lana alxabi xasattara amin yaa aliman yàlla ardi ti mu doon bodika xalifa ma bayna samawaat ti mu doon bodika doon na Maodo doon mooy sëñ ba ka ca barzaq tay wax ak waa fayin yi moodu mooy sëñ ba yër cër ak i dogal yëre sañ-sañ ci diine jaay yënguwal moodu mooy sëñ and yi soxna yaay kon bu nu sàggan ci baaba kon fay yaay bu nu sàggan ci baaba kon gala way doomi baay mbay fay yaay bu bay ku ci sàggan ñu dem bay ku ci sàggan ñu dem bay ku ci sàggan ñu dem

bi mu amee fukki at ak juróom benn lu ko sëñ Babacar woo ni ko doxaloon al amina watamani ko ba ma demee Saalum ba ma demee Saalum ma ni leen góor gi wàcc indi fa kuura ba indi fa rangarang ba tabax fa jumaa ja bu daan dem Saalum yóbbu camion ceeb camion dugub yóbbaale ay yére jox ko néew di doore yi Serigne Abdou amul moroom lu ma ko utal moroom dem leen bët Tiwaawan lu fa baax moo ko fa def defar na ñu maaya defar hôpital defar sapeur ba defar na raw da baayam Serigne Abdou ku feebar mu faj ku dee mu tëjal la ku juddu mu gëtt moo la dee paasi Makka yi al amina al amina amina ñu dem bala bay nañu way loo toto bi góor gi bu jiite ñun bu ne dàq bay bu nu tiite bay ba ko waaye bay bu nu jàq bay bu nu tiite bay ba ko waaye ay bu nu sàggal ba ca ko bu ñu sàggal yaa aliman lana jamila azara wa xaafiran lana alxabi xasattara yaa aliman لنا الجميل أزهرا وغافرا لنا الحبي حسبترا ولم يواعزا لنا الجرير لم يتك سترا سرير ويا عزيم العفو للأسيم يا حسن التجاوز العميم يا واسع المغفرة الأميمة يا باسط اليدين يا ذا الرحمة يا سامعا بكل نجوى منتا بكل شكوى وله ما يشتهى ويا كريم الصفح ويا كريم الصفح يا حليما ويا عظيم المن يا رحيما آمين ويا مقيل العسرات أفوات مبتدئا بنعم ومن هبات بالفضل والإحسان ربي فعلا من قبل باستحقاقها جلالا يا ربي سيدي ويا مولاي غاية رغبتي أتب محياي أتب محياي يا ربي سيدي ويا مولاي غاية رغبتي أنت محياي أسألك اللهم يا رحمن فلا تسوي خلقتي منان على بلاد يا عذاب النار لنا نجاة تلك الدار منو ما ñew lu gën ak ba dem te wayuma omaro omaro omaro omaro من وينا لا عمر أنا الفلاري عمر عمر عمر تيتا وينا لا سنجن دمي تيرنو شير تيرنو بشيرو لين كو تشانينا namm naa la bëgg naa la gis sama waay Omaru Omaru waay naa la Omaru sama waay ji sama waay ji ana soppe Cerno Cheikh ana soppe Cerno Cheikh ana soppe Cerno Cheikh Cerno Cheikh muy def ca mission baay bala ne Cerno Bachir gërëm na ko fekke na ko mu Cheikh Omar way na la Omar ana al-Fulaari ana al-Fulaari Omar Fuuti Taal way na la Cerno Bachir fekk na ko wakaam mu ni ma pam naa la Cerno Cheikh boole naa le Omaro Omaro way naa la Cheikh Omar Cheikh Omar taalibeem ya ñëg na borom jihaad man bëgg naa la Cheikh Omar way naa la Omar Omar ana alfulaari ana alfulaari ñëw naa Louga seetsi naa Cerno Bachir Cerno Bachir teral na ma ñaanal na ma surtout maam Cheikh Omar Khalifa Khalifa Omaro Omaro way naa la Omaro Omaro Omaro ko alpulaar alpulaar sama xel dem ci maam Cheikh Omar bëgg naa la way naa la maam Cheikh Omar way naa la Omar Omar Omar huuti ta way naa la kon may ko nu may ma waaw li ma la ñaan li ma la ñaan ko naa ko ñaan naa la ko nu may ma maam Cheikhu Omaro way naa la Omaro Omaro Omar Fuuti Taal way naa la waaw Cheikh Tidiane mi bisam bi Tidiane mi bisam bi incha allah le 27 juin la nga xam ni ci la Seydil Hadji Malick faatuwa mu ciy sargal Seydil Hadji Malick di ci dajeek ay soppeem ñu ngi koy yëgal ñëpp mbay doomi garmi la ah. maw doy baaya alhamdulillah Tilène TV leeru diine ci Lene TV leeru diine